<laughs> Nona gaay yi ana jëlal le ma Tafa ji mu ñëw ndax yaakaar naa ne euh Tafa ji yaakar na ne Tafa ji yow la xaar ñëwal gaaw yow la xaar ndax yaakar na ne guddi tollu cool bari na cool bari na gaay ci YouTube bi ma ngi leen di nuyu ñëpp di leen ñaanal jamm ah di leen ñaanal su bu leen fàtte abonné nag ah partagé yéen a ma gën a xam laal bi du mëna ñak mais gaay ana Tafa jël le ma Tafa ji Tapha Kandji ñëwal defal demande gaaw Tapha Kandji defal demande ndax yow ah waaw eh, eh, eh, ça bouge pas maa ngi ñëw ci yow tuuti Mohamed Ali Ndiaye le grand champion maa ngi ñëw ci yow tey hmm? maa ngi woon may ga de <laughs> Tapha Kandji sama may ga baa ngi nii de Bilal aka aay <laughs> non mu ngi fi àgg. ah jàmm damaa kaay dugg nga may nga dëgg may nga dëgg day <laughs> gaa ngi nii ana wantaay gi. <laughs> wantaay gaa ngi noonu. oh may nga kooku may nga pire la. non kii dafa fay yàgg sax. damaa ma xool miir bi ma xool miir bi côté bi muy saafee ma xool miir bi. waaw ma nga leen. waaw mooy saako pompiteer baa ngi noonu waaw wax nga dëgg may nga la ana muus mi. muus mi romb na wala romb na léegi dàq nañ ko mu génn léegi. <laughs> kooku mooy Kelwel kooku mooy Kelwel. mais ci loo nekk. ah mais su ma génnee rek lamb bi du leer de wala ma génne rek baax na. Euh, toogal ci mayka bi rek ñu waxtaanee waxtu vacances yi ci mayka bi. waaw mu gaaw kon nag parce que. waaw ñu waaw ah. waaw non te dëgg ah vacances yi yow lekkatu mayka mayka heure bi lay neex mais vacances yi vacances yi. yow li Pikine bari na trop ah. combat bi Pikine gis nañ tey Pikine yëpp génn. gis nañ Pikine yëpp dajaloo. Pikine yëpp génn. génn def mobilisation bëgg combat bi mhm. fan la leen seen combat ak Sa Thiès gis nañ ne doomu Pikine yëpp génn nañu xale yëpp génn ñu Niang a deux génn ñu yow taxaw ci kanam mu ëmma seen jëmmal ko Pokola di génn fële dafa mel ni combat bi am na fu mu toll Pikine waaw alaaji Fadam maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Alain bi génn léegi ak euh, sama ton saaxu bee di di nuy aussi gars yi nga xamante ni ñooy seetaan ci Instagram bi ak ci YouTube bi yëpp di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax macha allah. mais li nga ci wax sànq li nga jeexale ci Alain moom moo waral lii parce que bul fàtte ne diggante novembre ak janvier Pikine daf cee dund ñaari déception yi gën a rëy. seen histoire làmb. waaw. loolu mooy dëgg gi quoi. waaw Pikine dafet yi ñu jugee quoi. waaw ci dafet léegi nag ci dafet yi ñuy jugee ñoom. waa Pikine amna lu mu len jangal ande ni ak ni nga deg boy nya communiquer ak ni ëmma sen wax foofa la ba oh. donc nak mu nek lamb yo xamanteni fadam du combat yu wa Pikine wara per perdre Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. alaaji Fadam dafa mel ni sa réseau bi day. non ci yow la ci yow la tubaakaan ji mais maa ngi lay dégg de maa ngi lay dégg de. yaa ngi lay dégg. maa ngi lay dégg bu baax tubaakaan ji. waa Lutte TV maa ngi leen nii xam naa boo demee bës a nekk ci commentaire yi. non moom la yii lay def. xam nga moom dafa tàmbali. yaa ngi dégg donc mu nekk combat yoo xamante ni Pikine waruñu koo perte. Mm-hmm. te boo leen gisee li ñu génnee tey da ngay xam ne ñu bëgg combat yi la. Mm-hmm. waaye nag alaaji Fadam ñi ñuy bëreel tamit waaw. Bëril Sa Thiès Salif un grand champion. mais tubakan yi Eumeu Sène fi mu jëlee Sa Thiès fu métti ci carrière am la nag mooy Eumeu Sène bëri na ak génération yu bari daan ay moromam ba ñu jeex daan ñi maaseel ba ñu jeex jël mm-hmm. rakam ndax bëri ci sa rakk en général day métti ci làmb tubakan yi déplacé wu tuuti xam naa bari na bari na may kabelu jàpp ah ma xaw a génn tuuti parce que may kabelu dafa mel ni réseau bi say nga di jàll bi ban àll maa ngi nii meri naa nga naan may àll ah. ban àll kaa ngi da nga bëgg àll bi trop yow tamit medina ci loolu faram <laughs> maa ngi nii meri naa ah dama yaakaar dama yaakaar da nga teel a rek rek rek Non, non, eh, baal wax yooyu waaye nag wax ci li ngay laaj. mais mais combat bi combat bi Pikine jël guddi yi ñu le combat vous mettez avec seen carrière. ñu jël benn révélation boo xam ne nii bu tudd Sa Thiès. Eumeu Sène duggoon dan daan Balla Gaye numéro 2 ñaari yoon daan Lac de Guiers numéro 2. muy loo xam ne nii lu kenn dootul fàtte ci làmb la. Mhm. Pikine gépp dajaloo nañu mais Sa Thiès guddi yi ñu toll ndax dama ko tutuwaayee démb dama ko tutuwaayee dimanche tutuwaayee ëmma seen laaj leen mais ku ci nekk réservé wu nga am loo denc sa dënn saa li lim su ma jàngatee ay waxam mooy ëmma seen lenn laa seq moom mooy arbitre bi ma def la ma war a def ëmma seen li mu jàpp mooy saa kees ci li muy nar a def ci laa ko nar a daan tabakat ji loo jàngat ci signature bi ak loo jàngat seen jàkkaarloo ak open press bu Pikine def tey jii loo ci jàngatee dèjà Fadam li ma jàngat mooy Sa Thiès bu la waxee ne la amul pression dafay day dëfal ay supporteram rek. Hmm? parce que li ma la mën a xamal mooy làmb ji Sa Thiès Fadam mooy challenger bi ak luñ mën di wax xam nga lu hmm, hmm. naa la nga doon wax Modou Lo mooy borom trois générations yi mooy Eumeu Sène aussi Fadam ci borom trois génération yi la bokk. Eumeu Sène dafa bëri ak ay magam Fadam. Eumeu Sène dafa bëri ak ay moroomam fi ne nii mi ngi bëri ak rakam. te alaaji Fadam lu waaye gàtt dégg-dégg xam na ne Eumeu Sène ci biir làmb luñ ko ci jiiñ Eumeu Sène a ko def. wallaay ndeysaan man nag damaa dem ba toll ci làmb ci Eumeu Sène foo xamante ni bala maa gëm ne genn kuy takk ngemb yaa ko mën arbitre da leen ni boole nga daan ko ba toog ci kawam ma door a gëm ne yaa mën Eumeu seen man foofu laa toll ak Eumeu Sène ci làmb. Hmm? non lu leer laa Sa nag étoile montante la. Hmm, hmm. mooy xale la boo xamante ni dafa judd fekk ngembul li ci kër gi. ñu ne duubalee say sa baay balagay mooy samag mag carnet d'adresse mu ñëw moom tamit tracé yoonu boppam alaaji fadam muy xale bu gëm boppam comme ci moom tracé yoonu boppam ba pare xale la boo xamante ni fadam ku naqaree séqal géew la mm. maay wax ak yow mm. boo ko weddee nga laaj ko bu caaro géej non maa ngi wax ak yow man séq nañ tàkkusaan ci stade Léopold Sédar Senghor. wallaay loo koy dig bàyyil ba def ko ko ba pare. am na fulla am na fayda fit wa rëy na macha allah am na kàttan te lu ko bëtam may fitam du ko ko xañ. côté pression bi ci côté Sa parce que Eumeu Sène dafa dugg ci kër ga daan Balla Gaye numéro 2 sama tons. Mhm. ñu ne ko ndax foofu nga yem mu ne déedéet mu daan la dëgër numéro deux biir géejawaay dëgg la dëgg la yaa ngi dégg alaaji Fadam bu baax a baax baax dégg naa la démb ba pare ñu ne noonu may sa xarit mi ci njobu di rek ci ëmb seen aussi ñëw daan saatees daan ball Fadam lamb bi dafa am enjeu de xoolal enjeu bi foofu la nekk bien vrai que ëmb seen ak saatees waxante wuñu Mwen lam mwen te defa mwen aje yo fadam. Mwen kapou li aze vi. Bwenya de nye ou di kose mwen sen ti birge ou fèk fèk sa kes. Mwen sen bukho le bwenya direk mwen bwenya mwen mwen dan sa kes. Tadou yon mwen sen bwenya di dan sa kes sa kes di madan. ndax maa daan Lac de Guiers numéro 2 maa daan Balla Gaye te Sa Thiès saa yi gisoo ci ginnaaw gis ne Boy Niang mii mu jàkkaar lool ak Eumeu Sène mii mu jàkkaar lool ñoo daan ñaari ñoo daan magam enjeu bi bëri na trop dafa kàjji ba pare làmb waaye combat ñëw ci ba pare làmb ji man ci côté Eumeu Sène du ma ci mën a xuus non da ciy xuus non defal ndànk non da ciy xuus ci mën a xuus parce que dafa am loo xamante ni xam naa ne gars yi nas nañ ko te su ma ko waxee mën naa am waa Géejawaay ñu may dégg. Euh, Tapha Kandji li waa Pikine nas man dama la àgg lee nga xam ko yow Tapha Kandji wax la li waa Géejawaay nas man nga xam ne nii maa biir ma ca benn baat ba man man man altine laa man ajjuma laa juddu Pikine ba benn pièce la ñu teg ci cong mi saa kees nar a soogu Eumeu Sène ci rotation de corps la ñu teg wala Eumeu Sène day déplacé wu saa kees wala day dajeeg moom li wérte daal mooy ñaari mbër a ngi nii yoo xamante ni waxoon naa la ne la feeg mënoo leen a duma pour nga daan leen du yomb. muy kan ak mii ci la bokk. Omar Kan ci la bokk. da jàpp ne Eumeu Sène daa bëgg duma Sa dama ne waxuma xaw ma lan la ko jàpp da ngaa jàpp day mépp Sa ñëw loxo ba ca gannaaw nekk korsoloo bi dal Sa Thiès. li ma la mën a xamal daal mooy. maa ngi lay a am 1968 ba léegi maa yow ñu ngi waxtaan ci làmb. li ma la mën a xamal daal mooy di képp ku muy bëree taali guddi ñu toll Eumeu seen pour mu daan Sa Thiès fan la mën a jaar pour daan Sa Thiès ak du lay seetaan. Alaaji Fadam. waaw. képp ak Salif Sakho. di ko bàyyi muy agsi ci sa kaw ak xel mu dal. buñ ne la mën nga koo daani dañ lay nax. ndax Eumeu Sène wóor na. loxoom boobu jóg ci kanam Moussa Kessa jàpp ngem. waa Cheikh xam nga ëmma. waaw foofu tamit nag Tapha Kandji li nekk ci yow mu ngi xasar waxal rek amateur yi dégg la. waa mais waaw mais xam nga ëmma aussi Fadam. Mhm. gis nañ ko aussi mu xeex xeexu corps à corps te du jàpp. waaye comme noonu xeexal corps à dama ne la Tapha Kandji pour ma poser la question bii nga mën a nekk à l'aise ci lii ma lay laaj ndax ëmma seen nam bëri Balla Gaye numéro 2 bëri koog Bombardier. bëri koog Tapha Tine bëri koog Lac de Guiers ndax noonu la war a bëri noonu duma ci d' parce que ñee Sa Thiès leen a gën a gaaw. ah la Antaba ñëw nga nag. foofu la foofu la ko. foofu la combat bi la combat bi ne. may woo. <laughs> ay waa Pikine. mais nag bu wax la ci sérieux que Sa parce que parce que. <laughs> non waa Pikine lan ngeen di wooyee am di Moustapha Kadji bii nga xam ne sama wóllare ba léegi maa moom ñu ngi ko suñu indépendance. parce que bon parce que lan moo tax xeex bi ëmb seen xeex ak Balla xeex ko ak Lac xeex ko ak Bombardier ba ci Tapha Tine mii ko mu koy xeex ak Sa Thiès mooy Sa daf leen gën a gaaw ba pare. Salif dafa am li ñuy wax rapidité ak vitesse d'exécution. Tapha Kandji suma ma la déggee mooy Eumeu Sène ci carrière am pour mu daan Sa dina indi lu mës indi ci làmb mais Fadam xam nga problème mu Eumeu Sène mooy Eumeu Sène indi lu mu mësul indi ci làmb Fadam yombul de. non yomb na. Fadam. laaj ma lu waa xaaral ma wax la yaa ngi wax ci mbër moo xamante nii billaahi wallaahi taalaahi Eumeu Sène <laughs> peut-être ñi xam mais Fadam loo xalaat ci àdduna Eumeu Sène da koy bëre. waakaan ji Eumeu Sène mën naa bëre mooy jël nga oto jaarale ko ci péage bi ba léegi loolu ngay wax wuñ ko waaye dañ ne la Eumeu Sène dafa daan ci ñaari génération ba ñetti génération yoo xam ne nii Eumeu Sène daf leen daan ci njambaar ak ngar ñii Eumeu Sène xeex dafa xeex ñoom duma leen daan leen ñii ëmb seen da leen a jëli daan leen ñii ëmb seen dafa leen a xeexloo ñuy xeex mun a coppal seen tàgg dëgg leen gitaar leen waaye ëmb seen daa dajante ak génération bi Modou Lo dajanteel mooy Modou Lo daa daan ay moromam ba ñu jeex dajante ak génération boo xam ne ni mu dajante ak Ama Baldé ak Boy Niang recevoir leen Modou a ngi doog a recevoir génération bu mel ni Sa Thiès ci carrière ndax nam bëre Balla Gaye numéro 2 bëre ko ki nga xam ne ni tey jii mooy Tapha Tine ak Bombardier ndax noonu la Eumeu Sène war a bëri mais question ba léegi tontu ma ci da war a nomb rek ñëw taxaw. waaw euh, non non non wax naa la nee naa la ni mu xeexee ak ñoom bëgguma mu xeex ko ak Sa Thiès mais Fadam il faudra que ñu jël benn aspect aussi en compte mooy Fadam man Sa Thiès mi ma gis Fadam man Salif mi ma gis pour man dafa xaw a diis. non ci ni ma ko gisee nii rek xam nga mbër nag léeg-léeg mën nga ko gis mu sol blouson maanaam euh, apparence bi nax la. diis ci mbër ci ci ban côté nga ko jàngatee ca dóoba la kaw gi la wala tànk yi wala ci ban côté nga jàngatee yi ne kii diggante diggante diggante mbagg mi ba wàcc ci biir bi ndax songukat kaw mor naa faible de waa mais nag faram ak nan lay songee Sa Thiès faram mais mais mais combat bi bu nekkee combat rapproché ak da nga dafa xaw da nga sant ci diis Sa Thiès digganteem ak Eumeu bu amee distance Eumeu Sène la arrangé bu nekkee combat rapproché Eumeu Sène la arrangé. su fekkente ne woon ne man maa yor Eumeu seen man. waaw waaw surtout di ko indi ci làmb ji bu doon man la laa personnellement. mais comme Eumeu ak ñi ko yor ñoo ma dàq bëre ñoo ma gën a xam làmb. mais duma ko fixé loo du ma fixé loo Eumeu Sène. doo du ma fixé. Eumeu Sène ci kanamu Sa Thiès non ma fixé taxaw. nga xam ne Salif bu jugee rek dal sama kaw. ak du ma ko nangu. parce que ni mu nekkee njàmbar ak ngar mi gi nekk ci moom. gaynde ci àll. léeg-léeg mu dégg benn bruit lu ne tell day daw ba sori doore geestu xam lan la. làmb foole mais ku daanu rus. waaye surtout sàmm xayaan bi ëmb seen musuma gis mu arrière mbër ci làmb. dafa am ñoo xam ne boo leen bëggee daan danga leen di nax. <laughs> Modou Lo keroog biñ ko Modou Lo keroog biñ ko jiinee ne du arrière bi ko Ama Gueye dee dafa arrière. li gën a laa lay wax. Modou Lo dafa jàkkaarloog Boy Niang numéro 2 Boy Niang cadré ko mënut a pousse mënut a paas mu dugal loxoom arrière benn pa boo Niang bëmb Modou Lo cadré ko daal koy ëmb ak tànk ba loolu la waral Boy Niang bi mu ko songee waaye Tapha Kandji li coow li di bari bari bari bari bari bari boo indi woon Sa Thiès ndax wax nga Eumeu Sène ne boo ko indi woon danga naan ko bu fixé say tànk xaar ki nga xam ne nii mooy Eumeu euh, mooy Sa ndax benn explosité bu nekk ci Sa Thiès moo tax ak coogu mu sax ma mais bu indi doomi di Sa Thiès ni ko koy bërik ëmma seen xam naa nag wax ji dina xaw a diis lool waaye noo koy sant ci combat bi non déjà déjà déjà alxuraan karim man damaa far ci ji waa rek <laughs> damaa far naa ngi fi ma bëgg a dugal nag foofu du ma ko dugg ah wa léegi léegi <laughs> ay dimanche mais mais dégg naa la sànq nga ne. waaw Sa Thiès ku ko bàyyiloo lim doon bëree bu daanoo yaa ko daan. waaw maa ko sama la. ma waxoon ca rëg-rëg dinaa ko waxaat. ñëwal. su ma sañoon lam daan indi mën na ko bañ a mën na koo bañ a changer waaye dina am lu mu ci réglé de. dafa kañ li mu bëgg wax dama ci àgg mooy Sa Thiès bu arbitre bi sifflé na taxaw minute wala lu xeet lu jege minute tuuti xool Eumeu Sène lu ko defee ci kettuwee ba ci digg bopp Tapha Kandji àgg leen. loolu daal yaa ko waaye surtout Samba surtout dem nga mag dem fa bi ma gis dem njuloor mi ma gis man laa wax. kañ ji Eumeu sen, bi mu xoolee Sa Thiès ci ay bët xam naa ne Eumeu Sène dawul Sa Thiès dawul xeex nga ne Eumeu Sène na ci Sa Thiès combat bi bokk na ci combat yi Eumeu Sène gën a maanaam yow yaa ngi liir Eumeu ni mu respecté Sa Thiès Eumeu li mu contact Sa bi musu koo contact ci combat gis nga ko ñi muy contaagal mën naa wax fa muy contacté mën naa la wax ñi muy contaagal ndax man bu fàtte nag fa dem nag il est très yow da am ay pël yu nekk ci diggante ñàkk ñàkk roob xam nga xam nga bi nga ñibbee Lac Rose bi ma la ko waxee da nga ne déedéet loolu mos na am te boobu sama benn xaritu pël boo xam ne bu sàmmee ba jàkkaarloo gars yi rek danaa ma carte téléphone gars yi ñu ngi ci lii gars yi ñu ngi ci laa ñoo ngay def nangam ma ne ko hey sama pël bi hey sama pël sa pël boobu de xam naa ne moo raw Demba Ngari keroog keroog bi nga moom ma njëkk wax na ma sa ji ngay waxtaan xaaral ci live bi mu ne waaw mu ne mu ngi L200 bu weex ba <laughs> ma ne ko matricule bi nu mel mu ne ma déedéet mu ne ma du matricule yii de matricule bu konk la rakaata fakkat ji la <laughs> mais ba loolu neexul père ne ma noo naa wax ci làmb ay côté sëriñ ak yooyu ma ne ko noonu la mu ne daa fu ma waxoon te dama faa dégg dafa kañ <laughs> ferme. <laughs> waaye nag waaye nag lu coow bari bari bari bari bari ah